asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a suivre Yelli TV tey ñu ñëwaat ak yéen si beneen émission astuce et remède naturel tey nag liñ leen di indil mooy euh, liñ doon def rek te mu si gommage yu kanam tey ñu am si beneen indil leen ko pour suite bi ndax waxoon nañ leen bari na liñ leen siy jox lu bari la tey bii doon doon beneen si yooyu mais balaa ñu si dugg rek comme ni ñu leen koy waxee bu leen fàttee abonné. te bés cloche bi te aimé suñu vidéo commentaire yi am na si solo ak bépp question bu leen am rek di leen ko posé suñ si amee réponse bu soobee yàlla di ngeen ci jot tey ñu indi leen li nga xam ne moo di tomate tomate ngeen di ko utiliser chaque jour seen kër surtout jigéen ñi bu ñuy togg tomate boobu nag mooy tomate doom bi moom ngay jël li nga xam ne bon moom lay witti si garab bi yooyu yu frais yooyu yu baax yi moom ngay jël rek nga xar ko si digg bi soo ko daggee nga jël benn partie bi jël sa suukar def ko si soo ko defee si biir tomate bi nga jël ko teg ko bàyyi ba nga xam ne suukar bi seey na si biir su ko defee nga jël doom boobu loolu nga xam ne rek mooy sa mélange tomate ak sucre jël ko di ko frotter si sa kanam soo ko frotter di ko frotter ba mu mat cinq minutes cinq minutes nga koy téye di ko diw si sa kanam ba matee cinq minutes nga jël tomate bi teg bàyyi mu agir quinze minutes fukki minutes euh, euh, fukki ak juróom soo ko bàyyee mu agir def li nga xam ne moo di liggéeyam bu ko defee loolu durée bi yëpp vingt minutes lay doon nga pare raxas sa kanam ak ndox bu cedd ndox boo xam ne seddul tàngul soo ko defee bu soobee yàlla lii di bitage lépp loo xam ne ni impureté la bu nekk ci sa kanam dina dañ sa kanam dina nes na ci éclat bu rafet lay am bu soobee yàlla loolu lañ leen indiloon tey di leen jox di daje ba beneen yoon ci émission santé naturelle bi nga xam ne ay remèdes lañ leen di indil ak ay astuces yoo xam ne yu naturel la merci ñu ngi leen jox di daje ba beneen te di leen wax bu leen fàttee abonné ba beneen yoon